bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nu yàlla boole jëggal di dénk sunu bopp gannaaw bu ñu dénk bokk yépp gannaaw bu ñu dénkee sunu bopp ñu gën a tënku ci ndigali suñu boroom yi te moytu ay tereem lii ab laaj lay nu róol bokk yi kenn ku ne ci nit ñi day wér di wéradi waaye ak wér la gën a mën a yéem ci ak wéradéem am na ñuy wéradi ñoo xam ne dañ naan ah nangam rek la amut sol di ko bay bayal bam far daj yaram wépp te fekk fenn rek la tàmbale woon mu di ko yëg di ko laal waaye day mujj foo laal mu ne is su boobaa nag lu mu gën a yàgg di gën a jafe saafara yàlla nañu ci yàlla musal ni loolu mel ci aw yaram ni ak wéré di mel ci yaram di tàmbali di tuuti di tuuti ba màgg ba daj yaram wépp noonu nag lu ñuy wax munkar deme ci aw xeet yàlla mi ngi wax ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yéen a gën ci xeet yi ndax da ngeen di digle di tere digle lu baax ak fàttalee mbooleem li yàllay digle waaye di fàttalee it di tere lépp li yàllay tere li yàllay tere nag bu fekkee dañ koo jëfandikoo ci diine jëfandikoo bay ci diine mooy li yàlla digle yomb naa jàpp am na fu mu tàmbale am fu mu yam waaye benn bu ci nekk day am ay wànqaas yu ca bàyyi koo di law di tasaaroo ba kenn ku nekk mën na mën a xëy gis ca benn li ñu tudde fii munkar bokk na ci loo xam ne bu tàmbalee ci kenn te mooy jàngoro ji ma junj rek mu ne ca pat ne cell keneen yëg ko ne cell keneen yëg ko ne cell te fekk dañ koo jéem a suturaal su xëyee xëy génn ci ëtt bi génn ci pénc ma mën naa law ba daj fepp ndax ñi ko yóbbu fepp mooy ñuy xëye ci biir néeg yi jaar ci ëtt bi dem ci pénc mi ku ne jaar aw yoonam génn dëkk bi dem loolu nag yàlla nay lu baax rek waaye bu dee munkar la musiba am ndax dangay defe ne yow rek yaa ko yëg te fekk ñépp ko yëg tom biñ ci tànn tey mooy li wolof di wax ngarale ngarale munkar mënu koo weesu mooy lan bu fekkee ki koy def wolof dana ko tudde kuy dox ba àgg ci aw sël yaari yoon yoon wi mu jaaroon léegi yaar la def wi jëm ndeyjoor wi jam jëm càmmooñ mu bëgg a teg tànkam ci wi jëm ndeyjoor tànkum ndeyjooram bëgg a teg ci wi jëm càmmooñ tànkub càmmooñam fu muy dox jëm jëmatul fenn kuy toog mën na ko dal mooy ku toogut ci ker toogut ci naaj ñu naan ci ngiñ cangañ la def ku dëppoog sendal wala mu toog ci kerug kàdd nawet duñ wax duñ mën a wax ne ci ci ker la toog duñ mën a wax ne ci naaj la toog waaye mooy koo xam ne it fu mu toog ba nga ne fa laa koy fekk mu jóg toogaat feneen waaye bu dee cim xel la mooy koo xam ne buñ ko nee tànnal du xam bu muy jël bu mu dem ba di ko bëgg a jël defe ne bee moo gën ba ca des muy séeneen kon ngarale daf dis koy def ci ay wax wax ji sax ci laa jëm si moo ma tax a jóg dañ koy def ci jëf di ko def cim xel foofu nag du fa fenn munkar la fa tudd bu dee ci wax mooy koo xam ne ba wax jotee mën naa wax waaye du wax lu leer bu wax jotee mën naa wax waaye du wax lu kenn xam ku ne dana laaj moromam lu mu ci lu mu ci jublu woon waaye léeg-léeg it mu bàyyi ba wax jàll mu mel ni ku yëgutoon te su boobaa du wax lu kenn xam ndax bu weesoo amatul àtte amatul njariñ xanaa li ci kanam kay la ñuy wax waaye ak li teew waaye la wees moom jërëtu ko alxuraan jàngale ko ci dénkaane boo xam ne Luqmaan moo ko doon dénk doomam daf koy dénk ba agsi ci al amru bil maaruf wa nahyi an al munkar al maaruf mooy ponk yi lislaam bu dee ci lislaam lañu koy jëfandikoo lépp lu yàlla ne nañ ko def moo tudd maaruf lum ne nañ ko bàyyi moo tudd munkar waaye bi mu koy jàngal munkar dëgg dëgg dëgg mooy rek na nit nekk fu mën a xam nit na ne fu ñu mën a xam nga xam ne boo ko dee seeti xam nga waxtu wa ngay jóg ak fa nga koy fekk te buy wax it lu leer lay wax duñ ne mukk lu mu ci jublu woon foofu nag bokk yi jamono soxla na ko koo xam ne day nekk fu ñu xam di wax luñ mën a xam lu leer ba nga koy dénk daf ko ne yaa bu nay aqimi salaata bu ne ko fu lu julli fekk jugal bàyyi la nga doon def li ma leen a bokk julli yëpp woor tey liggéey bu asaka jote nga génne ko te boo ko mënee nga dem mag tey tudd yàlla akub yenentam sallallahu alayhi wa sallam waaye daf ko caa digal ne ko loolu soo ko defee sa jaan wàcc waaye nag del digle ki nga war a digal tam nangu nga digal ko bu dig bu digal ko jotee la nga koy digal na leer ci boppam mu xam la nga koy wax lu mu doon su tere jotee tere ko la nga koy tere na leer ci boppam mu xam lan la fu mu tàmbalee fu muy yàmm te nee na nag lu ñu la ca teg ci ay baat nu mu mën a doon dékku ko ndax foofu ku fi wàccut yaa ngi ca yoon wax yaa bunayya aqimi salaata wa amur bil ma'ruf wa nha anil munkar wasbir ala ma asaabak mooy luñ teg ci sab der luñ mën a teg ci sab der ak nuñ ko mën a gise ak nuñ ko mën a commenté yow waxal lu leer rek te ba wax jotee inna dalika min azmi al umur loolu kat ku ca teg tànkam te teggiwu ko ma ngi ca yoon wax ku ko topp mu dem ku ko toppul mu dem am na ñoo xam ne bu ñuy wax waxuma la lu mu ci jublu woon waaye faw nga laaj ko keneen kooku laaj ko keneen ndax wax ja du leer day mel ne kuy lokk aw làmmiñam lam ci jublu nag mooy du wan ne du ma seen moroom man waruma wax ak yéen sax kooku ku mel noonu buy dox da nga koy gis ci aw doxinam benn mooy mujj ñëw jotaay bu mu fekk yàq ko mooy mujj ñaan defaru leen te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ci julli ne fa nga jëkk jot toog fa kenn la seen kuy jéggi di ñëw mu ne ko toogal yaa ngi gàñ nit ñi te mënuñu la ko wax ijlis faqad adayta wa anait yàlla nag nee na kooku moom mënta doon waayam ndax day jaay yu amut koo xam ne kenn mënta jot ci moom buy dox mel ne moo man ñëpp kooku yàlla nee na boo utut man lay dëkk yàlla na yàlla musal ci loolu wala tusair xaddaka linnaas wala tamshi fi l ardi maraxa inna allaha la yuxibu kulla muxtalin faxuur ne ko booy dox doxeel ni nga mën a doxe rek mooy nekkal fi ñu mën a xam rek booy wax na leer booy taxaw taxawal ci ker gi wala nga toog ci naaj wala nga taxaw ci naaj bi ñu xam ne ci ker la taxaw wala ci naaj bi la taxaw waaye ci niñ ca nga niw ci ker niw ci naaj booy wax ñu naan day waliis wala day junj te nee nañ wax moom junj bokkut ca junj bokkut ci wax moo tax ñu ne lawla al ishaaratu la fahima al ximaaru kalaama dangay wax ak nit ñi wax ju leer ku ko munta xam nga joxañ ko su ko munta xam joxañ nga laal ko moo tax ñu ne bu du woon ak wax ju leer junj kese kese kese tàll aw yat moo xam ne danga ko dàq wala nga xëcc laab bi moo xam ne danga koo téye su loolu nee na xemar mën a wax ak nit ñi bi mën a bokk ci waxtaan bi isaara kese isaaraati kese kese kese kese kese booy dox doxil doxin wuñ mën a xam rek ñu xam fi nga jëm waaye bul yuuxu nit ñi di leen tiitloo ndax yuuxu nit ñi du aw yoon ci ku bëgg a wax ak nit ñi ñu xam ndax am na ku la dàq yuuxu fop te safut kenn waqsid fi mashik waxdud min sawtik inna ankar al aswati la sawtul xamir loolu lañ ciy dégg lépp mooy ŋarale rek mooy fii ab tànk fee ab tànk nit bu doxee ba ci aw yoon wii jëm ndeyjoor wii jëm càmmooñ ba muy laata jóg na xam fa mu jëm fan la fa mu bëgg a jëm su demee ba ca foofa su gisee tableau xam su gisee tableau it wenn yoon lay jël buñ ne ko du fii mu dëpp waaye faw mu jël nit daa war a jël wenn yoon moo tax benn boroom xam-xam nee na buñ la laajee saada dëgg-dëgg mooy lan saada mooy ku ajam faju ki ajam da faju mooy kan dëgg-dëgg mu ne mooy koo xam ne lu ci ne moo cay jëlal boppam fa muy taxaw moo naan ci naaj lay taxaw wala ci kër gi lay taxaw rek mu leer nañ su taxawee ci naaj wi kër gi dana ko fa fekk waaye su taxawee ci na kër gi naaj wi fekk ko mu leer nañ saadatuka alxaqiqiya masdaruha nadratuka lil umur wa laysat nadrat al axarina lak waaye laaj nañ benn xakim it ana ab taar dëgg-dëgg ci nit mooy lan mu ne du am col de kese kese waaye nag mooy koo xam ne xar kanamam bii rus yàlla mi ngi ci ak kersa digganteem ak boroomam nga xam ne fu muy taxaw it dana naaj bi laay taxaw wala kër gi laay taxaw mu laar naaj am keneen ku ko feelu ne ku xamut ci boppam dara lu may lu ci ne dañ ko koy xalaatal kepp munta amal njariñ sax ñam dëkkal ña ko gën a jege te ku amulul njariñ ñam dëkkal ña ko gën a jege munta jariñ dëkk réew moom njariñ am dëkk dara te ku amulul réew moom dëkk dara njariñ munta jariñ xeetu lislaam bi dara kon bokk ŋarale ci munkaraat yi la bokk na ko ab jullit moytu imaamul Xasaali nag nee na moytu ŋarale te mooy munkaraat ci munkaraat yi la bokk di ko watloo nit ñi bokk na ci li taxoon yonent yi ñëw buñ buñ mënta wax ne moom képp taxoon nit ñi yonent yi dikk alayhim salaatu wassalaam nee na tegg sa tànk ci munkar bis buñ taxañee basan gam nekkoon diine amatut place ci kaw suuf yàlla ñu ci yàlla musal te nee na su boobaa ak réer daal di not te bu ak réer notee alkande ñëwal xeet wi ñëwal jaam ñi bala ñu koo xam nag bis peñ ci taxaw su booba xam ko lu muy jariñati moo tax ñi nga xam ne am nañ kàddu bu ñu ne digle tere nag ñu ne nañ déglu diw ñoom waaw waaw akay waaye ku nekk na jàng digle tere ci këram fexe ba waa këram ñam gën a jege ci ñu dëkk ak moom kum ca gis défaut te war a def ŋarale mun na la defal wala bàyyil na tànk bi fekk bee wala bee que buur ne woon kat danaa la mas a wax loolu lu dëgg lam yeye buur buur daa ŋarale woon mbokki doom mbokkum doomi baayam la da ko da ko ne sa wax ji bari na lool di wax nit ñi di yéemu waaye naa la wax loolu lu dëgg bis danaa la fen loo mu ne ko may dey ku mu yónni ma yónni la maam dal da ko ko delloo rek ci teggin ndax na buur toll la dana ko dana la fen loo mu ne ko may de ku mu yónni ma yónni la maanaam ku ko jéem a fen loo dana la fen loo nañ ma jege ci baat benn bis la xëy takk la muy war fas la cay ànd lépp ànd ca ña ña muy àndal ñëpp taxaw mu fa benn tànk bi teg ko ci benn dëgal bi ne ko demal dëkk sàngam ma ngi fi ñëw mu ñëw na leen buur nee na ba muy ba muy laata dem moom mu yéeg fasam ba noppi aw fasam ba noppi wat bàyyi wen dàllaw mu wadd mu ne ko buur baal ma jox ma sama dàll mu jox ko dàllam wax mu dem ci dëkk ba mu ko waxoon ne ko buur nee na mi ngi fii ñëw ñëpp kër kër yi mu ne leen waaye nag ba ma koy wax benn tànk ma ci kaw benn tànk ma ci suuf xawma bi ci suuf mooy fekk ba ci kaw mu ñëw xawma bi ci kaw fekk bi ci suuf mu wàcc mu fomm laa di wàññeeku ñëw fekk bur fomm mu ne ko newoon naa naa la wax loolu lu dëgg mu ne ko may de ku mu yónni mu yónni la foo ma yónnee sama dàll ku ma ko jox bi mu waddee mu ne ko man mu ne ko la nga wax amul ndax dama ne damay ñëw te ñëwuma mu ne ko déet dama ne leen tànk man ci suuf benn bang ci kaw dafa ngarale xawma bi ci kaw mooy fekk bi ci suuf xawma bi ci suuf fekk ba ci kaw kon nañ seet feneen fu dëgg gi féete te man du ma nangu mu jóge fi man baatu danaa ñëw ba nga wax te defoo ko daa lay toppe kon bokk bokk yi munkar dañ ko war a wax ci penc ma tere ko maa ngi ñëw te demut moom fu dëgg féete ku ne xam na ko ka ne woon dana ñëw te ñëwuma waaye kii moom li ñuy wax lu leer nañ ñi la fu leer la ko teg daa ŋarale ku ŋarale moom xamoo day dem xamoo day dikk moo tax képp koo xam ne am na ñu yilif soo wax jotee ne leen di wax lu leer teel leen a yeewi dem leen toog ci kër ga wala dem leen toog ci naajo wala bu kenn toog ci kër bu kenn toog ci naaj dem leen toog ci seen biiri néeg su ko defee waroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam day naaj ci bis bu set am nañ ci wàll ñi nga xam ne it duñ ku sañ a di duñ duñ ku sañ yenn yi it waaye mën nañoo laabiri seeni mbokk it nañuy fexe ba di nekk fuñ mën a xam te kuñ fa mën a yóbbaale ñu yóbbaale dafa coow bari na lool ci suñ jamono ku war a wax wax ku wërta wax wax ku ne ci seen diggante di wax te am na koy wax ne ku wax daañu la tontu loolu moom ku bëgg a jaar yoon woowu war naa waaj ndax ñiy wax dañoo bari waaye loolu lépp ña leen di noppiloo mooy ku war a wax ñu ne ko yow yaa war a wax mu nangu ko nay teel a wax lam war a wax ku ko def baax na ku ko deful jaanam wàcc waaye nag su xoolee toog ŋarale bañ ku ko mere bëgg ku ko gërëm du dem moo yaar yoon yi rek moom la yonent bi yàlla doon wax yonent bi lan lan tarda anka alyahudu wala nasara xatta tattabia millatahum qul inna huda allahi wal huda nit day nekk fuñ xam koo xam ne sa dund lépp yaa ngi ci xalaat su ma ko waxee danañu ma mere bay boo nga delloo ndoom ak tànk dañ la joxoon moo gën a yomb su fekkee lu neex nit kese moom ngay wër di ko waxit bayee boo nga teel a noppi wuti ab liggéey moo gën a wóor ndax wax lu ñëpp lu neex ñëpp mu ne su ko kon yàlla na yàlla dimbali ba ñuy dox rek ci maaruuf te yàlla na yàlla dimbali it ba fu munkar nekk buñ ko jege fenn te munkar daf cee bokk ŋarale gi may wax léegi mooy boo waree wax waxal fa mu jote wala sax balaa agsi su ko defee nga yewi ku yewi yewi ña nga yeewoon waaye soo bàyyee ba ku nekk am ci aw yoon mën nañ laa jaaxal ndax am na si ñoo xam ne dañuy wax ne yow laa àndal te ànduñoo ak yow te mënoo leen a xàmmee surtout ñu futul foo duggee ci am pax ñu suul la ci biir am ñoo xam ne xool lu dul fu ñu lay gas ay pax bañ teggil la ko ñooñu nag dañoo mën a teel a yeewi danga naan dem leen toog ca ker ga ñu xam ne ker nga leen yabal wala dem leen toog ci naaj ñu xam ne naaj nga leen yabal waaye su fekkee danga ne ceel ñaan naaj waa ker ga fu ci dàq ba ñu ne kirtim ku nekk bëgg a yeey moroomam laajante ëllëg mi nga yem mooy mi ngi ñëw mooy li imaamul Xasaali wax ne suñ xoolee munkar ba mu tasaaroo ba yàq li mu yàq bala ñu ko xam bis peñ ci taxaw téye leen te téere yi baat xel bala ñu fa àgg nag yàlla noonu yàlla yee te wan ñu dëgg muy dëgg te wan ñu maaruuf muy maaruuf wan ñu munkar muy mankar te musal ñu ci te musal ci seytaane ak pexeem yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimiina